sadri wa yassir li amri wa khulul wa khadata min lisania, ya fafu khawni Assalamu alaikum baki juliti Assalamu alaikum baki talibay Nongi ambekte delu siwata giyen Ninkoy defe dimash bujot chi waktu yi Chi sen emisyon jaspara Gen chi andak sen mokum talibay Pabdemba Dja, Fiti Pontedera, sëriñ Pape Mokhtar Tall fële ca Parme ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ñu ngi ziar ñëpp eh, di yëkkati nag ziar bi gën a sell di ko jox suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Touba Cheikh Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziar mbooleem kilifa yi diine rawatina Cheikh yi sëriñ Touba waaye it di ziar euh, mbooloom communauté sénégalaise bi nekk Italie ak diaspora bi yëpp ku lim juum waaye buñ nee diaspora bi rek euh, mel na ni euh, bàyyiwuñu kenn kon ñu ngi ñu ngi ziar ñëpp dellusiwaat ak yéen nag ci diaspora tey di le 8 mars 2020 xam naa sunu doomu ndey Pape Makhtar dafa nekk ci yoon mi ngi yegsi incha allah léegi rek dana dellu si ànd ak ñun niñ koy defee dimanche bu jot euh, mu ne suta tàmbali te taxawuñu ci benn poñ ndax te ji bés bu am signification la ci àdduna yàlla dogal mu tombeek euh, xew-xew bu am solo boo xam ni dafa xewoon ci communauté Mouride euh, di màggalu maam soxna jaara euh, doonoon kenn ci ci jëmmi soxna yi nga xam ni ñoo nekk fële ci Sénégal mën naa ni sax ci àdduna bi ndax tey jii communauté Mouride. diaspora bi yëpp la adduna bi bu ñuy euh, demee ba nga xam ni daanaka euh, dëkk yëpp daanaka ni ko Touba ak hmm. Porokhane di di defee ñoom noonu lañ koy defee mu di saa su bés bi eh, eh, dellu see ñoom ak dañuy ànd euh, ki nga xam ni moo fi toogal Serigne Touba ak xalifa Serigne Bassirou Mbàkke ak mu Sëriñ Tuubaa ndax yàlla dafa dogal eh, Poroxaan dafa nekk ci lii nga xam ni moo di eh, waa kër eh, Sëriñ Basiru waa Daaru Minam ñoom ñoo ko féetewoo kon bu bés bi jotee mu ne su ta def lu dul ndokkale ki nga xam ni moo fi toogal Sëriñ Tuubaa yàlla dogal mu toogaat fi toogaayu mm-hmm. euh, sëriñ Basiiru Mbàkke di Cheikh Muntaha al Muntaha le choisi euh, alxamis bii weesu euh, lañ ko doon màggal la cinq mu tombe woon nag le di bés bi nga xam ni moo jiitu woon bés booba sëriñ bi joxe woon ndigal ni nañ ko def bésub tuubalante bésub jàng alxuraan bésub sarxe euh, ngir fas ci lépp loo xam ni rekk mooy sunu ay yitte wala sunu jaaxle moo xam soxla la moo xam lu mu mën ci doon euh, ñu mën koo ñu mën ko ci fas euh, mu fekk ñu it ci moment bu doy waar ndax ñëpp xam nañ jamono jii ñun ñi nga xam ni ñoo nekk fii ci mm, ci Europe rawatina itali euh, lii nga xam ni moom la dund mu di xew-xewu jamono euh, ñëpp mu nees ko tuddee crise sanitaire bi nga xam ni moo di coronavirus Euh, demoon na sax ba indi ay jaaxle ca senegal ndax am na ñu doon wax ni màggal gi boo moytuwul dañ koy dàq am sax ay voix yu autorisé yu jóg euh, di wax ni màggal gi dañ ko war a tuxal wala dàq ko ba beneen jamono waaye alhamdulilah bi ki nga xam ni moo fi toogal Serigne Touba ba mu. Euh, jëlee kàddu ca bés ba xamal nañu ne kat daanaka wax yu dal xel yoo xam ni képp kuy murit war ngaa jógaat sant yàlla waaye gën a wat ndax nag doon ab murit dul yomb eh, rawatina nga doon murit bu nekk ci biti waaw ndax murit bu nekk ci biti moom mën naa ni ñaari murit la war a doon wala murit ak genn wàll ndax euh, danga yore euh, maanaam kàddu sëñ bi ndax looy def euh, dañ la koy dañ koy delloowaat ci sëñ bi waaye noo mel dañ koy delloo derub murit kon nag ñun war nañu góorgóorlu bu baax sunu sunu sëriñ de euh, ki nga xam ni mooy rek kàddoom di Cheikh basiru wax na ay kàddu yu dal xel waxit euh, xew-xew bii nga xam ni xew na ndax sëñ bi euh, dafa baaxoo saa suy jël kàddu di waxtaan ak autorité yi ak mbokki julit yi baaxoo na di waxtaan lii nga xam ni moo di actualité actualité boobu daanaka li ci gënoon a nekk lu principal moo di xew-xew euh, santé boobu am di coronavirus mu dalal xelu julite dalal xelu taalibe yi euh, ñu mën ci amit xel bu dal ndax gis ngeen Sénégal ba léegi euh, yàlla musal na gum ci ndax donte ñi ngi ko fa doon wax semaine bee passé ñoo ko fa am ñëpp daanaka kenn Euh, kenn kenn kenn dugalu ko fa kenn kenn kenn jógewu fa ñoom ñëpp daanaka boo xoolee ñi ngi ñi ngi jóge bitim réew mu ne si nañu wax euh, France lañu ñu euh, France la jóge ay doomu France lañ kon ba sax nee nañu ka ko njëkk a dugal ka ko fa njëkk dugal wér na loolu nag war a indi xëy na xel mu dal ci sunu njaboot ga nga xam ni ñoo nekk Sénégal waaye it ñu war a waxtaan ci ñun ñi nga xam ni ñoo nekk fii eh, nekk ci épicentre xew-xew bi surtout ñun Italie mën nañ ñi daanaka itali bokk na ci première eh, pays européen boo xam ni daanaka moom la yëf yi gën a touché eh, dinañ ci waxtaan tey jii ak sama naataango Pape di xaraat tam ni ko defee woon dimanche yi passé ndax ñaari dimanche yëpp ci la waxtaan euh, naka la laale économie bi liggéeykat yi ban taxawaay la ñu war a am ak ban taxawaay la ñu mën a jël ndax ñëpp gis nañ ni alxamis bi weesu euh, conseil des ministres dafa jël benn dispositif bu extraordinaire bu mustaam italie tëj école yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew mi yëpp école oññi degré maanaam li nekk ci crèche ba ci université maanaam daal ñenn rek la ñu tëjul mooy ñi nga xam ni dañuy def formation à distance par exemple ci internet bi ñooñu moom daanaka seen seen seen liggéey du du du du am impact waaye lépp luy euh, luy wàllu njàngu euh, ak ndaje Euh, ba ci wàllu sport bi sax ñëpp gis nañ sport bi fi mu ne nii euh, ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni football bi nga xam ni Italie daanaka football mën naa ni bokk na ci lii nga xam ni mooy seen seen diine euh, dañ ko def apporte cuse waaye xew-xew bi gën a yéeme mooy démb ci guddi dafa amaat beneen décret bu gouvernement bi génne bu delluwaat ci décret bu mu génne woon alxamis ndax euh, mbir mi euh, dafa saafaraagulul fii euh, wàllante bi dafa gën a yokk ndax facteurs yi xëy na dinañ ci dugg ci biir démb ci guddi daanaka nekkoon na journée guddi goo xam ni guddi gu xaw a gudd na ci gouvernement bi ak ñi nga xam ni ñu ngi suivre actualité diggante Lombardie région de Lombardie ak onze provinces yi nga xam ni wër nañ ko ba laal fële nga xam ni moo di Veneto euh, dañ fa teg beneen provvedimento boo xam ni daanaka dafa def li ñuy wax zona rossa euh, zona rossa tëj zone yooyu yëpp nga xam ni tey jii euh, dañuy tere dem dem beeg dikkalante bi lu dul ci wàllu lu nekk lu extraordinaire xeetu ñi nga xam ni dañuy Eh, eh, dugal lu mënta ñàkk ci dëkk bi ak ñi nga xam ni dañuy génn ci lu mënta ñàkk ak lu jëm ci wàllu fajkat yeeg ñooñu daanaka mën naa ni ñi ngi nekk ci situation état d'urgence loolu mooy situation bi nga xam ni moo nekk itali ndax nag euh, euh, nañ ko wax fa yii wàllante bi dafa bari ba nga xam ni te liy faatu mi ngi yokk lu ci lim bu yéeme. Euh, mu nees naa sax am njàngat ci faatu yi ndax faatu yi daanaka mel na ni ay màgget rek ñoo ci faatu ak ñi nga xam ni dañoo amoon ay complication ndax feebar bi mën naa ni foofu la gën a bon ci ñi nga xam ni dañoo am ay complication respiratoire wala ñu ñu romb juróom benn fukki ak jëm kaw ndax boo xoolee daanaka ñi mu gën a sonal ñooñu la euh, nord bi dem na ba nga xam ni euh, seen structure sanitaire yi mi ngi à genoux Euh, réparto thérapie intensive yi dem nañ tey ba nga xam ni amatuñu fu ñu def malade ba ñi ngi euh, ñi ngi ñi ngi jël yeneen euh, ñi ngi jël malade yi ci ci ci nord bi di leen yóbbu ci yeneen dëkk kon mu mel ni situation bi nekk na situation bu bu doy waar loolu nag ñun war nañ ci am njàngat ndax suñu gon gone yi ñu ngi ci kër yi depuis te defe naa ni euh, décréto bi mu ngi jëm trois le 3 avril xamaguñu ndax fa la yem ndax euh, dinañ ci ñëwaat ci kanam euh, jamono jii pikku feebar bi egseegul maanaam bi mu mooy waxtu bi muy nekk ci diggu looleem egseegul yooyu yëpp nekk ay facteurs yoo xam ni tey jii bëgg nañ ci waxtaan Euh, mu mel ni sama doomu ndey ñëw na sëñ Pape euh, dama koy jox mu dugg nuyoo ñu doog tàmbali bisimilah sëñ Pape. waaw asalaamaaleykum sëñ Pape maa ngi ziar. maa ngi jégalu maa ngi maa bu baax ci retar bi xawoon na loxo xawoon jàpp. Mm-hmm. ci ciy bu baax di ziar mbokku taalibe di ziar mbokku jullit yëpp. Mm-hmm. Euh, di ziar suñu mbokku chrétien yi. di jiital ci nuyoo bi nag suñu suñu buntu ci sëriñ tuba di sëñ Muntaxa Bachir di bu baax suñu sëriñ it sëñ Saliou Mbacke Darou Salaam eh, di teg loxo di ci loxoom rek mu jàllale ñu ko bépp kilifa diine ak kilifa aada di nuyu mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yi rawatina nag suñu mbokk auditeurs yi nga xamante ni ñoo bokk ak ñoom rajo bi dimanche bu jot. saafon teg ñoom ci rajo bi di nuyu nag suñu jëwriñ ci rajo bi sëñ Ibrahima sëñ Mahamadan ko jaarale ci ci ñoom rek di nuyu Modou Mbaye Thiam Baye Fall di ko yaar bu baax moom it di ñaanal yàlla may ko ndëgër laay eh, xanaa gàttal noonu rek eh, ànd ak yow eh, dabe rek ci ci ci liggéey bi incha allah. waaw sëñ Pape xanaa da nga maa fekkoon rek may def benn réaction to semaine bii ñu génn. Mhm. Euh, di wax ñaari xew-xew yi nga xam ni moo fi amoon mhm. benn ci premier décret bi nga xam ni moom la gouvernement bi defoon defe naa àllarba mhm. euh, doon doon tëj école yi ak euh, arrêté xew-xew yi nga xam ni moo nekk wàllu public lépp ci Italie nekk nag semaine bu xaw a doy ndax ñun Italie fii dund na loo xam ni defe naa ni eh, ñaar fukki at ak juróom lu teg maa ngi fi. Mhm. suma koo dund ndax ñu toog ñu ne la dimanche jot na ñu ne la benn keesa ubbiwul. Mhm. Euh, wala ñu ne la ajjuma jot na. kenn mhm. xutbawul. nekk na lu metti ci ci population bi. Euh, metti ci wàllu euh, boo jëlee cadre religieux bi sax. waaye psychose bi. bi bi ñu bi ñu doon àndal dafa amaat mm-hmm. leneen bu ñëw tegu ci biir loo xam ne xamuñu ko mm-hmm. euh, ndax dafa mel ni xëy na dafa am lu ñu xamagul lu ñu découvrir gul lu yokk ci biir mm-hmm. euh, te wax dëgg fa yàlla gouvernement bi ñi ngi def monitoring boo xam ni ñu ngi joxe seeni données daanaka boo xoolee chaque euh, defe naa demi journée responsable protection civile di la def lii di euh, briefing sànq rek mi ngi koy def mm-hmm. démb tey rek mi ngi wax ni euh, daanaka yëf yi dafa xaw a tàgg témbee mm-hmm. ndax euh, téeméer ak fukk defe juróom-ñaar faatu nañ fi cent dix sept personnes démb tey mm-hmm. li fi li fi liñ fi diagnostiqué ci ñu am cas yu cas bi dafa yokk yokk jéggi dayo loolu mhm. italien yi am nañ ci comportement ndax gis ngeen xew-xew bi italien moom daanaka buñ ko waxee li ñuy wax fatto la legge trovato l'inganno gis ngeen démb mhm. bi bi waa Lega soffiare décret euh, dise décreto ministériale bi nit ñi ci guddi gi la ñu jël seen valise jël train yi jëm si suuf ba fi ne nii dafa mhm. indi chaos boo xam ni kenn xamul ñu seetlu ci zone di villeggiature yi nga xam ni moo nekk ci kaw fi ñuy defee chi daanaka dafa fees del del ba nit ñi dañoo yéemu ba sax boo xoolee bari na ay médecin yu génn di wax italiens yi ci facebook di leen wax rimanete ak casa mm-hmm. ñàkk xam ñu bari parce que nag bari na manque d'information bu am ñii di wax ni feebar bi dañ koy euh, dañ koy euh, médiatiser amul ñii di wax am na amul ñii di wax affaire économique la euh, bari na lu ci nekk loo xam ni euh, jaaxal na nit ñi waaye li ci gën a yéeme mooy facteur économique bi mu laal. Hmm. ndax euh, semaine bi ditaa yi dem Casa Intégration ne kenn xamul nu toll. Hmm. yi war a dem semaine prochaine Casa Intégration ne kenn xamul nu mu toll parce que liggéeyatuñu secteur tourisme hmm. bi alberguère bi. ditaay bari ñi ngi tëj parce que ñi ngi dis dire à quatre vingt dix wala à quatre vingt quinze pour cent euh, appuntamento yi restaurant yi noonu donc secteur yëpp lay laal dem ba ñun ñii nga xam ni dañuy liggéey dafa nar a laal suñu secteur secteur yi ndax tey jii buñ la nee bañ ko defee ba léegi nga nekk fekk sa soxna yéen ñaar yëpp ngeen di liggéey ñu ne leen seeni doom mënuñoo jàngi te da ngeen daan xëy yóbbu leen asilo ba ñii ñu yóbbu leen primario keneen ku njëkk wàcc daw dem jëli leen situation bi indi benn situation de crise boo xam ni mën naa la ni solution kenn amagu ko ay proportion la ñuy def ak naka la ñu war a mën a taxawee ba génn ci situation bi tey daal Pape loolu lañ fi bëgg a wax nga jox la cadre ma bëggoon surtout nga laal cadre économique bi euh, ak wàllu liggéey bi liggéeykat yi ban taxawaay la ñu leen di laal ak naka lañu ñu mën a def suñ Pape ma delloo waat la cadre waaw jërëjëf sëñ Pape moom jàngat bi nga ci def wax dëgg yàlla yokk ci dara sax dina xaw jafe waaye liñ ci mën a wax rek mooy ne que euh, vraiment c'est une situation bu bu bu chaotique bu doy waar boo xamante ni ñi nga xamante ni ñooñu jiite sax maitriser guñu ko nañu ko war a maîtriser euh, ñu ngi essayer ñu ngi tenter vraiment ñu ngi def ay provvedimenti yi euh, dans un premier temps dañoo euh, cercler woon la zone rouge muy zone Codogno Casalpusterlengo euh, Lodi euh, un peu la Lombardie mais tey egg nañu ci benn dimension boo xamante ni bi ñu demee ba gis ni yëf yi mu ngi law ñu xam ne matuwaay yooyu ñu jëloon doyul mais man foofu damay damay wax rek ni foofu it nañoo def ni chinois yi defoon maanaam yëf yi ba mu ne këtt ne jonn du ma sax këtt ne jonn ndax xam naa ni Chine boo demee yëf mbir mi yàgg na fa waaye dañ koo nëpp nëppal nëbb ko ba ba mu ba mu ëpp leen loxo ndax euh, mënul am progression bu gaawee nii ci ci même pas même pas vingt jours en Chine ak tant de autant de morts foofu euh, mënul gaawee noonu daal donc ça veut que lu ñu nëpp nëppal la euh, te mënuma gëm ni nit ñi doon am yenn symptômes yi di am yenn feebar yi wala euh, influenza yi daawuñu dem ci hôpitaux yi Chine ba ñu diagnostiquer leen ba gis ci ñoom ni am am na lu nekk ci ñoom ba euh, détecter virus bi donc je pense que virus bi virus bu yàgg la man loolu laa gëm mais xëy na nëpp nëppal bi moo yàgg ak information biñ ci war a joxe au niveau de l'organisation mondiale de la santé Euh, joxewuñu ko pour que ñu mën a teel a divulguer les mesures de précaution pour que nit ñi mën a teel a jël seen matuwaay manque d'information boobu ci sama xam-xam bu gàtt moom laa gëm ni xëy na moo àggul fu mu war a àgg ba yeneen dëkk yi mën a jël seen matuwaay pour wàññi law ga muy law ba mu egsee fii it gouvernement bi man ci sama gis-gis dama jàppoon ni lañu ñu waroon njëkk a def mooy arrêté mezzi publici yi parce que buñ ne euh, activé nañu par exemple le euh, activité wu euh, smart working ngay mën a toog sa kër mën a liggéey li ngay liggéey ci sa computer joxe sa disponibilité agenda bi pour huit heures de temps liggéey li ngay liggéey e je pense que booba soxlaatul que pendolari yi di continuer di andare avanti indietro parce que booba mënoon nga ko arrêté ndax kii liggéey pelleteria xëy na kooku mënta def smart working parce que euh, dafay nekk ci ci ci liggéeyukaay bi jàkkaarloog ay bagages di def activité am kooku ko def laboro agile mënu ko def euh, donc présence am c'est important euh, mais ki nga xamante ni dafay jógee Lombardie war a dem Bologne war a dem liggéey ci bureau am et cetera pendolaare yi fii diggante bi dañoo bari ñu train bi jugee Milan dafay fees del del parfois da ngay renoncer sax ne xaaral ma xaar bu ci topp euh, presque matin bi chaque trente minutes quarante minutes am na train buy jógee euh, Bolo euh, Milan pour dem Bologna donc day dañuy fees alors je pense que mesure yooyu ñoom mënu nuñ ko teel a jël parce que amul woon sens vraiment ngay tëj école yi ba noppi te accompagner wuloo ko ak mesure yoo xamante ni nit ñi daf leen di permettre ñu toog seen kër pour mën a liggéey yenn liggéey yi trop tard lañ ko lañ ko accepter smart working bi mën a permettre nit ñi ci zone yooyu sax ñu mën a toog seen kër euh, bañ a jël virus bi bañ a divulguer virus bi et cetera tey nag egg nañu ba nga xamante ni même zone Parma bi ñu nekk dañ ko def zone à haute surveillance euh, du ma ni sax zone à roche sax parce que Euh, amul alarme boobu mais quand même def nañ ko zone à haute surveillance ba nga xamante ni tey boy génn ak euh, providimenti yi ñu génnee bu ci guddi euh, tey booy jógee ci benn commune pour nga dem liggéey ci beneen commune il faudrait que nga yore sa busta paga wala sa contrat di lavoro wala nga démontrer ni que ni man damay liggéey mais mënatuma génn tey ngay sénégalais ngay tubaab ngay loo mënti doon nga naan damay dem def passé jaata fii wala damay dem passé jaata fële déjà xam nga Italie daf nekk dëkk contradiction contradiction bi mooy yow décret bi njëkk bi nga njëkk a def naka ngay mën a defee décret nga ni non fiera bu mu am ba pare nga permettre mercati rionali yi euh, marché yi am sa dëkk ak sama dëkk ak feneen ak feneen mais boo leen permettre marché yooyu fiera la rek nit ñi dañ fay daje jaxasoo dafay am xamu ku fay ñëw ak ku fa ñëw donc contradiction bobu je pense que li li yombal euh, law law fi virus bi ci la bok vraiment nak décret bi euh démb ci goudi mooy décret bi gëna am pratiquement euh, bi gëna courage yi nga xamante ni def nañu ko xol les zones vraiment yi nga xamante ni y a beaucoup de cas yu ñu été insuspecté. ñu jël fa ay mesures urgentes Euh, mesures yi mooy ni que mun loo génn tey yow mun loo jóge fii nga ne da ngay dem ci beneen province ku jóge beneen province tam munul ñëw jóge foofu ñëw bëgg a dugg fii euh, répercussions yi muy am aussi ci côté liggéey euh, le parti sociali muy ci jelle ci e UIL à livello regionale fii in Emilia Romagna amoon nañu benn accord bu ñu defoon par exemple ak la région ya y a quatre ans de cela ñu tuddee woon ko patto per il lavoro kooku syndicat yi ñoo ko def euh, waxtaanoon ci ak bi vraiment mu demoon ba réduire drastiquement parce que boo gisee Bonaccini ci campagne électorale am muy muy ndamoo euh, que ni Emilia Romagna euh, bëriwul ay disoccupati patto per il laboro boobu mu moo indi woon boobu mu signé woon ak ñun ñu jàppale ko ci aussi ci azienda yi et cetera de euh, réduire drastiquement le taux de désoccupation bi nga xamante ni mu au niveau de la région pacte boobu nag moom la ñu renouveler il y a quelques quelques semaines tuddee ko nouveau pacte per il lavoro euh, déjà xam nga Bonaccini moom il a pris comme euh, ci junta régionale Vincenzo Colla mi nekkoon vice segretario nazionale mutuelle donc ku xam liggéey la ku xam li def la ba pare il fut aussi Eh, secrétaire général bu ci eh, Camera del Lavoro bu Bologna eh, donc Kolla il a accepté à ce que bon procedure ñu def ricorso à procedura di cassa integrazione signé na accord bi ak les parties sociali yi ñu ci jël ci Lille ba nga xamante ni même accord yi sax Euh, man sànq jot naa benn note à ce note régionale boo xamante ni mën nañoo def euh, accord di cassa integrazione même in via telematica ñu yónnee la ko ci via PEC ngeen jël répondre tontu nangam ak nangam construire tout tout percorso parce que accords yi def nañ ko ak IMS au niveau national et cetera et cetera euh, volet économique bi c'est important.

Eh, démb à Milano par exemple baar yi dañoo fees dell eh, pub yi fees dell mel ni tubaab bi dañ leen ni eh, tey jii bu ngeen noosul dootu leen noos fii ba chissà quando ñun ñëpp ñu ci profito dall'altra parte bi nota bi génnee décret bi bi mu génnee nga gis ñenn ñi ña ngay gàddaay di daw di dem fa ñu jëm kenn xamu ko waa sud bi déjà ñu ngi naan képp ku jóge au nord da boo ñëwee fii aussi sud dañ lay mettre en quarantaine donc affaire bi indi benn kaaw kaaw kaaw boo xamante ni kenn du comprendre kenn du comprendre yëf yi euh, nu mu yemee mais au delà de ça euh, ñun suñu suñu rôle moom mooy euh, vraiment jox suñu mbokk taalibe yi ay indication wax leen ne leen nañu ànd ak dal ñun sénégalais yi nañu éviter di divulguer des messages yoo xamante ni court circuit médiatique la dañu ko yónnee rek ñu ñu ko nit ñi sans pour autant ñu xool fonte bi fan la ak euh, wu euh, contenu bi euh, parce que nous, en général des mesures qui vont dans la direction pour seulement contraster évolution virus bi ñun nañu ànd ci xeex nous nañu ànd ci liggéey maintenant ñi nga xamante ay frontalier dañuy jógee provincia Cremona war a liggéey si à Parma eh, nañu yore seen busta paga xam ni eh, nañ ci tegu parce que altrimenti boo doxeewul doxin woowu dañuy defe ni da ngaa doxi sa soxla te mënuñ la téye yàlla rek moo xam parce que ci biir décret bi même le ministère de l'Interno intervenir na ci à ce que même bu fekkente parce que nous wax dénoncé nous avons police finance etc. préfecture parce que dénoncé, nous ba nous, nous la ngay te euh, mesurer sa température fait ci yow euh, donc euh, ministère de l'intérieur qui donc intervenir Et nous, Euh, dafa am lu nu lu nu ñun sénégalais dafa am lu nu tàmm euh, bu ma toogee liggéeyee ba dimanche rek ma ne ah, soxna si waaye suba woo naa Pape Demba nee naa ko euh, incha allah fa fa la ñuy fa la ñuy añsee muñ loolu waaw kooku nu ko muñ ndax dara yàggul nu mu muñ loolu muñ yooyu te toog ci kër yi dafa am yoo xam ne nag c'est minimum indispensable yoo xam ne mënta ñàkk mooy ñu génn dem duggi wala boo liggéeyee ba wàcc laata ngaa dugg si kër gi nga dugg li ngay dugg indaale ko ñëw toog jàpp sa njàmbur parce que déjà yaa ngeeg xale yi ci biir kër gi xale yi ñu ngeeg compiti yi nga xamante ni ñu ngi leen ko jox ci euh, registre électronique bi boo ñëwee war nga mën a sax am tuuti temps nga xoolal leen ko euh, jàppale leen ci extra sinon bo leen bàyyee noonu rek euh, duñ ko def wa ilaa temps bi ngay am sax tuuti nga toog ak ñoom nekk ak ñoom ci biir kër gi almeeno Euh, boo demee nag ba nga xamante ni ca liggéeyukaay ba y a des situations aussi yoo xamante ni décret bi leeralu ko parce que kooku aussi il faut que ñu wax ci parce que décret bi duggul ci biir azienda bi mais suñ pap ku ne xam na ni azienda yi am nañu ay mensa te mensa ku ne xam na ni taabal la ñuy teg nga toog nii ma toog nii ñu jàkkaarloo y même pas un mètre matul sax un mètre te MINSA euh, ñu fay daje mooy laboratoire yi te laboratoire yi kenn ku nekk da nga jóge euh, ci horizon divers euh, te kenn xamul yow mi démb foo demoon foo jóge koo àndal koo dendal ak la ngeen séq man xawma ko donc yooyu it soo ci amee benn dut bu la ci jaaxal bu ndaw ci biir azienda yu nekk am ngeen représentante des laboratori sulla sax muy RLS bi décret bi aussi wax na ci Euh, am na benn décréto appli ci décréto applicativi yi am na ci benn bu muy wax ni RLS aziendali non mi mettere in contatto ak euh, datori di yi parce que ñoom datori di yi ñoom ñoo am responsabilité pénale bi ci salute e sicurezza del lavoratore donc yow en tant que liggéeykat soo demee ba santiroo ni yow mi fii may liggéey nii sama fit sama lii dalul suggérireel waxal sa xalaat bul ko ragal Voilà kan moy RLS bi mu ñu wax la ko parce que mom mo leen di représenter yéen kat yi mu wax ak la Laboro bi à ce que ngeen def une organisation interne bo xamante dina leen permettre ngeen dugg seen mensa godéere seen pausa tranquillement sans pour autant que moom pëccëxoo wala mu am benn surnombre de personnes ci biir mensa bi parce que les conditions yi permettre ko donc il faudrait la collaboration de tout le monde ne serait-ce que ñu def benn flexibilité flexibilité oraria boo xamante ni dina permettre euh, ñu dilatare un po' l'orario della mensa parce que man maa ngi waxtaan ak benn société boo xamante ni euh, dañu bëgg a dilatare l'orario della pausa di un'ora pour permettre almeno lavoratori yi kenn ku ci nekk nga mën a godere sa sa pausa ñu ngi ko mën a pour ne pas euh, compromettre diritti dei lavoratori mais dafa am beneen phénomène boo xamante ni aussi ñu ngi koy gis la semaine dernière man daanaka ci la semaine bi yépp ci loolu laa nekk di ci xeex parce que euh, j'ai assisté à une société boo xamante ni vraiment dafa dafa dafa créer mesuration température fayda tey hein. euh, c'est-à-dire dafa jël benn dafa woo benn agenzia di somministrazione euh, teg ko ci buntu diitaa bi laboratoire yi bu ñu ñëwee euh, ay laboratoire ñoom ñoo leen di mesurer sa température boo eggee trente huit degré rek ñu ne la non yow mënoo liggéey donc kooku aussi liggéeykat yi bu ngeen ko gisee il faut le dénoncer parce que c'est pas normal waaw parce que garantie de la privacy wax na ni loolu c'est pas normal loolu ñi am droit mesurer sa température mooy organes yi compétents yi nga xamante ni système protection civile bi teg na ko wala asle wala muy médico compétent bu Hacienda bi kooku keneen ku ñoom amul droit ne dafay ñëw di mesurer sa température parce que privacy loi la boo xamante ni boo leen dénoncé mën nañ cee am problème ñoom société bi koy def fii man dama leen bind ne dindi leen ko ñu ki nànka ma bindaat asle wax leen ko bind sinda ko euh, dëkk bi wax ko ko xam nga bind protection civile wax leen ko mettre leen par connaissance li lendemain ñoom ñu dindi ko ma def communicato ci, eh, pour eh, laboratorie wax ko laboratoire yi ne leen vous n'êtes pas obligé ngeen sottomettere wu ci prova di misurazione boobu anche perché boh, bi ma fay dem jour boobu dama fekk muy taw laboratoire yi ran ci suufu taw eh, bi imaginer ki nga xamante ni dafa xaw a débole bu taxawee ci taw tooy température am yéeg mu ñëw nga mesurer ko température bi yéeg nga ne ko doo liggéey wala ñi nga xamante ni dañoo ñëw dix minutes primal fekk foofu benn fiila non riescono ad andare a pur timbrare léegi après azienda bi dagg leen mezzo donc una serie di cose yoo xamante ni mi ngi compromettere diritti dei lavoratori eh, privacy dei lavoratori economie bi surtout eh, eh, congedi ubbi ne am na congedi yu ñu ubbi congedi parentali ku bëgg a def congedi mën nga ko def sans pour autant que Euh, ñuy xool principe de de de conditionnalité etc. cetera nangam ak nangam yooyu yëpp des accords yoo xamante ni ñu ngi fi donc pour dire que euh, vraiment le gouvernement am na benn passo bu mu def boo xamante ni simplifier na aussi euh, la manière pour que laboratoire bi mën a dans la bonne condition pour que laboratoire yi aussi par rapport à cette situation ñu mën eh, conciliare tempo di vita a tempo di lavoro Perché il contratto nazionale, eh, national yi un thème boo xamante ni ça conciliare tempo di lavoro e tempo di vita perché non è ñëpp au delà des cancelli euh, de l'azienda am nañu beneen dund mm. donc euh, case integrazione impose imposé wuñu que usufruire ferie fino a esaurimento donc dañ ni conditionnalité yooyu yëpp dañ koy dindi e quelle lì. C'è necessità, c'è problema di produrre, c'è problema di coronavirus, eh, eh dell'evoluzione, c'è problema di contaminazione, eccetera. Azienda deve fare bloccare, una, non su, un settore, industria alimentare, parce que eh, lekk lekk moom eh, ku ne xam na ni ja xajoowul actuellement maa ngi maa ngi doon job sànq li tax sax ma xaw a dugg yéex a dugg nii dafa am euh, benn vidéo conférence bu ma defoon léegi nii pour sama yenn délégué yu bari yu ma dajalee via Skype doon wax ak ñoom mesure de comportement yi ak yu demee noonu daal ak euh, faydaate yi di taa yi di def sans pour autant compromettre RSCU yi ak RLS yi may leen nag brièvement nañu waxtaan benn 20 minutes euh, parce que man it damay jàpp après ci kanam loolu moo taxoon ma xaw a dugg si yéex a dugg si sax mais daal sëñ Pape li ñu ci mën a wax daal mooy vraiment euh, mu kii bu xaw a doy waar la bon coronavirus bi nag dëgg-dëgg euh, bu ñu fi nekk rek mooy lëmbe na jamono lëmbe na jamono te it euh, information yi ci war dëgg dëgg dëgg dëgg man je pense que joxaguñ joxeeguñ ñu ko. Euh, sànq ci ngoon sama sama groupe euh, whatsapp bu euh, école football suma doom bi fam benn waay ju dugal ne ci TG comme 24 pas seen page officielle bi dañ ciy bind que y a un américain Francis Boyle la tudd Euh, nee na kii c'est une guerre ma arme xawma lan ak lan bioterrorisme affaire yu demee noonu daal d'ailleurs ngi koy bind message sax pour laaj ko ne ko mais ban daat lañ ko bindoon pour ma dem resalire maa ngi koy yónnee sax professeur Simal comme euh, moom moom mooy gën a ci affaire yooyu ma ne ko prof gëstu ko euh, defal na ma ci benn commentaire sax nag d'ailleurs mais daal euh, pour dire la vérité euh, interprétation ci virus bi bari na euh, ñii naan américains yee ko créé ñii naan chinois yee ko créé woon mu rëcc leen ñii naan virus la bu fi yàgg am mais xëy na forme bi mu génne nii moom mooy forme bi gën a virulente de sorte que pour contenir contenir ko dafa xaw a jafe ñii ne vaccin bi ñu Euh, piqûre euh, un cas boo xamante ni buñ ko ko piqûre tane na mooy vaccin bi ñu fajee Ebola bi euh, donc y a beaucoup d'interprétations yoo xamante ni man ça me passe à travers parce que bëgguma ci retenir dara parce que loo ci jéem a téye rek da ngay moom mooy loolu loolu ngay gëm daal mais li ci am am solo mooy effet économie bi effet économie bi moom dinañ ko sentir loolu dinañ ko sentir ñu dëkk ci yenn zone yi nga xamante ni vraiment ñu ngi nekk zone à haut risque euh, gouvernement bi euh, am na ñu leen teggil muutuwo yi et cetera et cetera ndax gis nañ coono yooyu nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel euh, bon c'est vrai répercussion bi dina di di nga ko tuuti mais bon ñun Sénégalais ñun am na ñun dañoo ànd suñu borom Eh, rawatina nag na doon taalibi Serigne Touba eh, discours bi nga xamante ni Serigne Mountakha def na ko ci rek man ba ma ko déggee rek sama m'a beaucoup rassuré waaw ça m'a beaucoup rassuré ndax nag dëgg-dëgg ku xam na ni eh, épidémie moom yàgg na fi man ba ma juddoo laay laay dégg la peste de soixante huit xaw ma ak yu demee noonu ak lamu mu ci ay nit et cetera et cetera te teewul yooyu yëpp ba mu amee it sunu sunu sunu sunu maam sunu mag Eh, seen course leen yore woon teg di ñaan di suñ yàlla suñu borom mu saafara ko eh, jàpp nañ ni ci li koy saafara yi eh, yooyu ci lay bokk ci kàttanu yàlla kon daal sëñ Pape xam naa ni du ñu dama lay delloo kàddu gi rek xam naa bu ñu mënee teel a ubbi ligne bi rek gaa ñu cee joxe seeni xalaat man d'ailleurs j'ai fait même benn vocal yónnee ko quelques nit ñu ma yore woon seen numéro fii au niveau de la zone pour wax leen ne leen nañu éviter dox bi Euh, il n'est pas dit nag ku bëgg a voyager nga war a dem Sénégal bi war a duggee Bologna kenn terewu la ko euh, na nga yore sa titolo di via di viaggio euh, nga dem dellusiwaat dem sa kër ñoom daal actuellement boo ko tënkee ci gàttal mooy liggéey wàcc dugg sa kër waaw liggéey wàcc dugg sa kër leneen li nga xamante ni moom moo la génn moo la mën a génnee te mun te ñàkk mooy peut-être nga dem nga duggi mais quant à damay dem euh, fi dem sa village pour euh, euh, doxantu ci négoce yi damay dem feulé pour def lële damay dem feulé pour def euh, déjà c'est un peu contradictoire parce que le fait que ñu ubi négocier yoyu ubi négoce yoyu te mayo nit ñi ñu dem di dox yi je pense que amul solo motax mani il a il fa il a fallu que ñoom ñu tëjoon lépp wa parce que négocier yoyu bu ñu ubbee nit la bëgg gis mu dugg fa pour jënd ñom lolu moy doxal seeni négoce mais il n'est pas Euh, favorable pour ñoom ñu ubbi seen i négoce taal seen i làmp jël commerce sa teg ko fa di ko fay te gis ñu nit ku ñëw foofu di doxantu sax bay bay gis nit kuy jënd donc c'est un peu contradictoire euh, je pense euh, baar yi la même chose la même chose xëy na au niveau communal au niveau local xëy na baar yi ñoom mën nañoo dox parce que nit ñi foofu la ñu dëkk foofu la ñu xamante mais dem na bi indi benn psychose boo xam ni mooy bi ngay wax sànq génn sax dugg ci baar sax pour pour euh, pour pour pour naan café sax yow da ngay da ngay am panique bi parce que sax xel mu ngi naan kaas bii may naan est-ce que amul ko ko ci naanoon parce que en réalité ka ca naanoon yow xamoo ko xamoo baar bi nu mu ko raxase et mais li ma gëm rek mooy nunu toog ci kër yi dafa suñu café Touba bu bari waaw ñun yàlla may noonu café bu dàq ci café yi café gi gën neex ci café yi café gi gën a barkeel ci café yi te suñ kër Tuubaa bu bari toog ci kër yi savante njaboot gi waxtaan njaboot gi taal télé yi fii télé yaa ngi fi nan toog seetaan télé yi te jàpp suñu jàmb suñ Pape rek ba ci kanam waaw jërëjëf Pape Makhtar <laughs> jërëjëf yi eh, yéen a ngi déglu seen émission diaspora ngeen ci ànd ak seen mbokk Pape Demba fii ci Pontedera eh, ci xarala bi sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ci beneen wàll wi sëriñ Pape Makhtar Tall fële Euh, Pape waxtaan nañu daanaka lu bari mais boo xoolee cadre liggéeykat yi lañu ñu gën a laal ñi nga xam ni ñoom ñoo féetee euh, ci fabrique yi ndax Italie daanaka euh, mën naa ni manufacture la waaye buñ nee immigration sénégalaise bu Italie jaaykat yi ci lañ bokk. Mm-hmm. jaaykat yi nag dafay jaadu aussi ñu waxtaan ak ñoom. ndax jamono ji nekk na jamono ju doy waar joo xam ni yaakaar naa ni wér yaram moo war a jiitu lépp euh, ndax jamono ji euh, ñuy tere ku génn euh, déjà gis nga kii ñu teg maanaam daanaka dañuy tere Eh, eh, eh, yenn attroupement yi ci ci ci ci ci ci lieu yi nga xam ni ñoo tëju fi ne nii lépp luy euh, luy événement palestra yi ñu ngi leen di commencé tëj euh, jusqu'à nouvelle ordre parce que ou bien ñu ñu diminuer euh, créer benn système boo xam ni daanaka mooy daanaka dañuy def alternance parce que lu ëpp fukki nit waru fa mën a dugg tey jii boo xoolee Euh, mel na ni euh, daayira yi nekk Italie yëpp man bokk li ma gis ci centre bi fii mooy tëj nañ leen euh, tëj nañu daayira yi ndax jamono ji amatul kenn koo xam ni mënees naa respecté protocole boobu nga xam ni moo di toog lu ëpp un mètre ñun loolu moo ñu conduire sunu jumaa yi nekk fii yëpp zone bi yëpp dañoo def directive Euh, en commun accord ñu tëj ko ndax euh, ñun sunu julli gis ngeen bu ñuy julli sàppe niñ koy def daanaka mbagg ak mbagg tànk tànk foofu nit ñi daanaka dañuy euh, dañuy dañuy nekk daanaka distance bu yéeme seulement dafay jaadu aussi ñu wax nit ñi yee jaaykat yi xamal leen aussi li nga xam ni mooy situation bi li tax gouvernement bi teg deuxième euh, décret bi nga xam ni moom moo tëj zone zone rouge yi ndax dafa am lu ko waral boo leen xoolee influence bi nekkagul ci picco bi hmm. dafa mel ni fii fukki fan normalement ci lay nekk phase maximum nga xam ni ci lay euh, nekk ci niveau plus haut pour war a mun a wàcc Euh, ñu dem ba nga xam ni mooy maa ngi koy wax sànq thérapie intensive yi amatuñu euh, ay lal yu disponible euh, amatuñu amatuñu lii nga xam ni moo di même personnel bi actuellement nii war nañu defe naa ni assumer vingt mille nouveaux personnels sanitaire ñu jëm ci wàllu santé dem nañ ba ñuy wax ni boo moytuwul bu ñaari malaat ñëwee dañuy xool maanaam ci wàllu at bi pour seet kan mooy kan la ñuy prioriser kon dañu am jafe-jafe te e, e, e, ñu gis ne bu ñëpp toogee seen kër ñi nga xam ni amaguñ ko munis naa mënees naa wàññi lu bari ci ci ci ci ci ci wàllu wàllante bi dafay jaadu nit ñi jël benn examen def benn examen de conscience ku ci nekk xool euh, man ban rôle lay war a jouer ci lii ndax it euh, léeg-léeg euh, war a soqeeku benn cent euro wala benn cinquante euro muy ni la jàngoro joo xam ni du yem ci yow rek waaye day daanaka day sonal ñi nga dëkkal ñëpp loolu it mm-hmm. dafay jaadu ñu xalaataat ci bu baax suñu mbokk jaaykat yi dinañ dund nag situation bu metti nous les comprenons mais dafay nekk moment boo xam ni day jaadu ñu toog xalaataat niñ ko defee ci daayira yi jël benn solution boo xam ni day métti lool waaye day nekk solution boo xam ni mënta ñàkk dafa mel ni am na mbokk mu nekk ci biir de ku ma gis mu dugg salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ah jëwriñ si Ablaye. maa ngi lay ziar waaw suñu baax. Diop Diop Diop. ngi ñu ngi ziar bu baax Diop. man man a dama doon wax ni seen seen confinement bi mbaa téléphone yi bokk ci woon. a parce <laughs> que ay nit ñi alarmé zone rouge yi. man sama mbokk yi daal mbaa duñu leen duñ leen duñu leen confiné tam ci téléphone métti na de. maa ngi koy tooñee pa bon xam nga gars yi moom lenn mooy dañ ci génne ay humoriste maa ngi tooñee pa bi nga xam ne dana da doon woote ni doom yi dañoo nekk extérieur mun leen bu leen bu leen bu leen di wootee ti ndax téléphone bi day con day day day contaminé waaw ma ne ko ne ne ko na ci boole ba seen yoon bi rek ba xam. waaw léegi de bari na Sénégal yu koy wax dégg naa di wax gars yi moytu leen woote bu bari bi. man leen kon nag kon nag bu waaw yónnee bi nañ ko ci boole baax rek bu boobaa moom mari daal ma si wane. bal, ma ma ak bu baax rek. baal ñu ñu ñu tàmbalee ñu tàmbalee ñaari xasida rek xam naa mm-hmm. ndax lenn li moom dafa mel ni ak tooñ na bu ko defee ñu jégguloo ko jànge ko mm-hmm. xasida astaxfirullah bii nga xam ne Sëñ wax na ni képp ku ko jàng ba noppi boo jàppee ni jor nga bàkkaar rek da ngaa njort Mm-hmm. ak xasida ak uh, muslu ci balaa bi nga xam ne moom itam wax dëgg baax na lool bu ko defee ñu yéene ci suñu mbokki taalibe bi yéene ci mbokki jullit yi waaye yéene ci mbindeef yëpp rek ndax ñëpp yàllaa leen moom moom te moom wàññiwu ko dara nañu dimbale rek li moom mm-hmm. xam nañ ni lu ci bari doomu aadama lu ko dal rek moom na seet boppam yàlla du tooñ kenn doomu aadama yi tooñ boppam أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه من الوجه الكريم حولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زائر من هو سألته بقوة الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة السهار مع الكبار من دمائر خاسر يسر كل ما تقدم وما تخر وبينهما فهمنا الهمة وزدني حلما وحملا وأدبا وفهما ربي الكسلوم نافع وتلحيات من شق مانع اكسف للأسرار والحوامدة يا خير من تصلح سرا حامدا اجمح ما تفرق لدى خدتي من الخير وساد الحلدى لدى تفكر أعظم يا ربي بكم والتحسين الحلمية حبل يا أكرم في تلاوة خيرا كثيرا كوى الخلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجتل فؤادي وتان آياته حبل كوني بشر كل ما يطلب ولي زوار أبي ما الهوب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 مستمسكين بانحياز أحمد خير الأنام منتهى المنتدى من خالها في زمن الوباء آمنوا له من البلاء اللهم صل على سيدنا محمد وسلم barke borom Tuuba ñoo ngi ñaan ci barke weer wi barke guddik lay wax ni raaj bi nga xam ne mi ngi ci weer wi di ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy shifa min kulli daa di ko ñaan ci barke alquran nga xam ne mooy shifa min kulli daa di ko barke di ko ñaan ci barke Cheikh amadou Khadim nga xam ne mooy yërmande yi jaam ñi ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom balaa bii nga di wàcce mu jiital jaam ñi lool la jël jullit ñi lool la jël mindeef yi yolool yàlla nga ko fi jëlee amiin bu ñu gisati buñ buñ ko gisati waaw suñu borom saafara lépp bu ñëpp daal delluwaat ci seen sago te suñu borom def ci suñuy xol iman ban gën ko jaamu ñu bëgg ñu jaamoo ko ni ndax kat moom kat ma ni jaamu leen loolu ma jëli leen fi andi andi fi ñeneen rek mm-hmm. kon ñoo dellu di tuubal suñu borom daal di leen jaajëfal yéen itam ci ni ngeen di assurné mbir yi euh, dëgg euh, lii moom xam nga dana dalal xel ndax nga wax dëgg yàlla kenn xamul fooy jëm Pape man daal li jaaxal mooy hmm, xam nga euh, virus bi ni toog leen seen kër te virus bi xamoo daa ñuulam daa xonq xamoo daa yor béjjéenam daa yor ñeenti tànkam ñetti tànk li si looy daw la saa li ñuy daw fan la ne. xamuñu ko li ñuy daw fan la ne. Mm-hmm. boo nee ci ngelaw li nekk donc c'est impossible kenn daw ko mënta nekk. dëgg la. waa dëkk bi ñu nekk it ni au fur et à mesure yi dem day day maam dafa mel dafa pire. Mhm. ndax information yi ma jot léegi ci ci ci timis diggante démb ak tey y'a cent trente trois morts. waaw moo am de. cest vingt quatre heures. Mhm. vingt quatre heures cent trente trois morts. Mhm. te mu mel ni te te te wax boo xamee euh, gouvernement bi ni muy doxee ak politique ni muy doxee ak information ni muy doxee pour man maanaam joxe sax le nombre exact. Mhm. loolu tam il faut ñu bàyyi si xel maanaam joxe exact de cas ñi xam ne dal na leen joxe wuñ le exact de ta ñan la ci lor. Mhm. donc ba am man jàpp naa ne am na lu ñuy nëbbu. ñaareel ba mooy. Euh, ma gis ni Chine ba affaire ba tàmbalee ñoom damay gis ñoom dañuy désinfecter les villes mm-hmm. mais fii gisuma daa dëkk buñ kii am saa bi dëkk bi amul dara luñ fiy suy dañ ko def bu nit ñi nelaw c'est-à-dire il faut aussi ma noonu tëj ñu ni dans en quarante bi ah, la li ñuy wane moom ay suy baleeg lu ne la ñuy sotti ci mbedd mi par guddi te nag exercice boo koy def daanaka day mel nii dañoo jël euh, lu toll ni bataillon militaire ñëpp maanaam mbedd bi mètre carré par mètre carré la ñu la ñu nettoyé. mais jar bi rëkk bi bu dee amuñu amuñu jumtu mais nañu woote say volontariat ci biir ci di naan par exemple dëkk bi ma dëkk ñu ne ah ku bëgg doon volontaire ci ñu defar loolu sëñ bi ñëpp dañu daal di doon ab armée. Hmm, hmm. man mais fii gis dëkk yi gisuma ñu def fii suy bale yooyu amu fi c'est-à-dire lan mooy rey virus bi kon. Hmm, divulgation bi day gën a yomb. day noir moom day noir. ah léegi nag man situation yi moom c' est lu ngeen ko lu ngeen ko xalaatee. waaw ah. euh, xalaat gi de mooy fagaru rek. lépp lu ñu euh, teg comme recommandation. Mm-hmm. Euh, buñ ko mënee doubler ñu doubler ko suñu njaboot gii fi nekk. Mm-hmm. comme dañ leen a tere génn. Mm-hmm. ndax jamono jii du du jamonoy fowi ci biti. déedéet du jamonoy dem ci centre commercial. Euh, du jamonoy dem di football yi ci mbedd bañ nañ ko ba sax euh, ñi nga xam ni dañuy jàng hmm. ku ci param nekk ci école bi jox nañ la sa ci sa biir portale argo Scolanex compiti yi ñuy def hmm. chaque jour nga xam ni euh, dañuy mën di liggéey ci biir jour ci jour bi compiti yoo xam da leen di téye ci kër gi Ah, ah. ñi nekk supérieur ba ñi ci ba ñi nekk primaire ñëpp euh, média tout tout ñëpp am nañ lu ñuy liggéeyloo euh, hmm. yaakaar naa ni ña fa nekk ña nekkoon ca daara ja di nafar war nañu mën a am lu ñu nafar ci kër gi hmm, hmm, euh, waaye nag bëgg lu yomb wala désintéressé wu di wax gaa yi dañuy wax rek waxuñu de yi ñu gën a xam moytu waxuñu de <laughs> dalul xel de man de sëñ Ablaye loolu laa nit ñi moot kenn nag waaye nag damay wax ni. Mhm. Euh, ni tubaab yi téye seen i njaboot ñu nit nañ ko téye suñuy njaboot. waaw dëgg la ndax ndax euh, euh, tubaab a gën a bëgg a génn mbedd tey jii bu fekkoon autorisé nañu xale yi waaye dama gis pédiatrie pédiatrie génn di joxe ay recommandation am na ndaw soo xam ni dafa jóg wax. beneen keneen ki anesthésiste la nee na leen téye leen seen njaboot yi bu leen ànd ak ñoom sax ci centre commercial yi xam nga wax jooju du waxu ci xam waaw te mooy li nga wax rek am na ba léegi euh, maanaam maanaam euh, gouvernement yi toujours information buñ koy génne dañ koy filtre xoolal tey jii France France daanaka semaine bii di ñëw boo moytuwul mooy ëpp cas Italie Mhm, mhm. Allemagne moo ëpp cas Italie mais waxuñu ko. waxuñu ko effectivement parce que nag dañuy am ñoom seen système stratégique de communication. boo xam États-Unis moo ëpp cas Italie. Euh, dañ ko wax waaye yéeme na yéeme joo xam ni euh, yow boo toppee ci masse bi nga xam ni moom la ñuy yabal di yóbboo indi te tooguloo boo matul di nga ci am surprise bu metti boo xam ni donte nag. Euh, euh, ñun euh, li ñuy wax rek delloo si dellu nañ lépp dénkaat ko suñu borom waaye nag dañ da tegu ci recommandation yi yoon wax ba pare dégg nga li li li yaakaar naa mbokk mi wax na ko keroog dimanche wala weesu yàlla fi nekk mooy yor ñëpp waaye nag dafa am lu mu dénk àdduna mm-hmm. loolu dañ ci nekk maanaam doxe àdduna ak doxe xel ndax xel mi moom àdduna laa tax mu tëb moo tax mu jóg yaakaar a andi woon na ci xisaab euh, borom gilem gi ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyoo ba noppi mu ne ko waa sa gilem gi nag doo ko takk mu ne ko denk naa ko yàlla ak bu yonentam mu ne ko déedéet da nga koy takk ba noppi doo ko dénk yàlla ak bu yonentam mm-hmm. c'est-à-dire liñ mënal moom yàlla du fi wàcc di di ko def mbaa mu wàcc ay malaaka ñu koy def ñoo ko maanaam ko ba ba lii sa capacité te mu jox la l'essence jox la capacité intellectuelle jox la capacité intellective jox la capacité nga mën a xam mën a si mm-hmm. euh, sëñ bi jaam jee mu leer na leen am na veleno te jotewu leen dara boo demee ba jox ko soxla nag bu la sab loxo bu la matee nag yàlla war dëgg mm-hmm. kon kon kàddu boobu ngay wax daal nañ xel te bañ ko soto valutare donte ñun ñëpp yàlla lañ gëm mais nag euh, ñaaw njort ji da ciy baax ci ci googu wet ndax képp kenn ku ne xam na ne ab oto day loore waaye boo dem ci tali ba tëddoo fa wala à l'imprévu comme nga gis oto bi daw nga traversé ko mën na laa bañ a faat boo toogee ci kër gi nag oto bi mën na laa a faat mhm. kon njort tam ko jëmale foofu te xam ni ñi li ñu recommandé te gënuñu noo bëgg dund ci ndax ñun moom dañoo jox benn di ñu laaj ñaar ñoom nag seen adduna bépp fii lañ koy mel ñun nag adduna bii ci la ñuy liggéey àllaaxira moo tax ñun dañoo war a gudd fan dañoo war a gudd fan ndax suñu daal daan gudd fan baax na lool ndax dana tax rëcc dana tax a defaraat dana tax a jubbanti rëcc rëcc yi loolu la daloon mhm. nañ nañ nañ waaw nañ tënku ci waa yooyu daal nga xam ni génn nañ ko ndax maanaam si ki ma lakkandoo ñun ñoo ñoo bokkandoo toor bépp fi mu toll nii mm-hmm. du jaaykat yi rek man jot naa message euh, samay dirigeante wax ni suba dikaay euh, bi dañ ko tëj donc yooyu yëpp ci donc yamut ci jaaykat bi mais <laughs> dama ñu naan ñu rasee <laughs> mm-hmm. gën a nekk ci la may téere rek loolu moom da ngay xam ni <laughs> àdduna toll foofu du jikko jamono la mm-hmm. du jikko jamono la waaw du jikko jamono la waaw waaw Ablaye xam naa ni par expérience war ñu mën a Euh, jox seen euh, seen seen seen expérience bi nga xam ne dund ngeen ko fan yi ndax ñun samedi bi ñu weesu mooy samedi bi ñuy njëkk a daay sunu daayira daanaka moom mën naa ni choc la nekk ci zone yi ndax zone yi xalaatuñu woon euh, lu mel ni bésub samedi ñu ne duñ ci jàng alxuraan wàcc ci kaamil mu nekk nag loo xam ne mënatul ñàkk ndax fii yoon nañu tënk yéen yéen yéen zone boobu naka ngeen di dundee seen situation boobu mu waral mën a nekk euh, euh, xëy na modd boo xam ni ñi nga xam ni dundaguñ ko te ci la ñu jëm ndax am na zone yu bari décret bi actuellement ñëpp la laal tey jii amatul kenn koo xam ni war ngaa mën a def ku ko def sa bakkan nga topp. Euh, hmm. di dajale mbooloo ci ci néeg wala ci saal moo xam xew hmm. xew diine moo xam xew xew aada. ba ba yoon di la fa fekk yéen naka ngeen di dundee jamono ji parce que defe naa ni ba ñu tëjee euh, seen daara ji euh, ba léegi am na situation boo lañ def naka la seen daa daayira di di di di di ci wàllu euh, moo xam dajale àddiya yaag maanaam jàngum alxuraan bi laayante biir ci wàllu diine xasida ak yooyu maanaam mën naa ni ban tëjee daayira bi ak léegi xam nga lu fi taxawa gise bi gise bi doo nga taxaw waaye lan na na na daayira ba daan doxe mi ngi dox mi ngi dox ci noonu ba tey maanaam virtuellement lañ jël euh, euh, whatsapp bu daayira bi dèjà amoon na whatsapp groupe ñëpp nekk ci ñuy ci la ñuy séddale kaamil bi kenn ku ne jël benn numéro bu bu yeggee fi mu nii ba yàlla ji dugal na léegi nii maanaam kaamil guddi ajuma ji nga xam ne guddi ajuma ñun mosuñu ko jëlal depuis quatorze ans udut mu dajeeg màggalu Tuuba guddi ajuma muy taw muy liw muy glace muy tàng maam donte ñetti nit mom da nañ fa dem dundal ko ñi nga xam ñu don tawafé kaaba bi ñun ñom lañ koy dundale eh, légui dugal na légui euh sanga bi wax ni kaami bi tambal nga xamni ngi jëm guddi ajuma bi jëm nga xamni nit ñi dana xaw am jox kenn ku ne jëkki ba nga war da ko jang bu dee am nga tab bi nga daal di annoncé ni man amna naa tab bi keneen jël ko hmm xasida yi doon jàng kenn tax kenn ku ne la nga man ci xasida nga koy jàng bu ko defee suñu soxla itam noonu ñoom ñi jox leen ay wedd ñii dañuy def baqiyat salahat ñii def salatu ala nabi ñii def ay basmala ñii def ay asbala mhm. ku ci man alquran ku ci man saar yaaj ku ci man diggante amayata ba ba naasi maanaam xeebu ñu dara man ñu impéñaare leen ci fii guddi ajuma mom da ngeen ñuy jox sax ñu ngi far maanaam jubluñ sax bëgg lim bi mais dañu bëgg impéñaare nit mhm. bu dé ci mbirum addi tam kazalika euh, laayri bi am na daayira bi am na poste pay daayira bi am na par exemple mbokkum taali mu lay dégg nga dem jox ko sa addiya wala nga dugal ko ci bu def ko bonifié ko wala maam mensuellement li ñu daan joxe par mensualité bu dee lu ci social bu dee lu jëm ci ñun tëddati kër sëñ Tuubaa bi bi ni maam fenn fu ne ak jënd gi xam ne ñu ko bëggoon a kër gi ku ci mën a barkeelu ci set ci ci kii yooyu lañ koy joxe nga xam ne sax sax informatique am na am sax far na nga xam ne tey ji boo doon def réseau compte bu dee contrôle am na da nga mën am les traces kon tëj euh, gi daal lim ñu fànqal maanaam lim lim lim ñu lim ñu xañ daal mooy xëy na gisee bi nga xam ne mbooloo bépp daanu ko gisee te léeg-léeg ñaar ñett gisee ndax démb rek wax dëgg lu mel ni jiwri ñeg bi ki jiite euh, commission culturelle ñu daal El Hadj bokk ak sëñ Moussa Amar daje nañ ñu ngi mban mbokkum taal a xam ne waaye yow nga wàññi muy sëñ bërgu ñu demoon fa doon ko siyaare loolu kon xam nga defal nañ ko mbooloo ndax ni ni benn jëmm la lu bu kenn jugoon dem ci barab daayira bépp la fa demoon moo tax daanaka ñun dañoo am benn blason bu ñu yor boo xam ne lu ci waay def saa à dire day da loolu day daal di jox benn conduite ndax sa comportement sax da xam ne li ngay def donte individuellement ko ko def yaa yaa ngi tooñ mbooloo mi bu dee safaan la ndax ñëpp nga ko def dañoo dugal ci nit ñi ni kenn ku ne fi mu toll membre nga boo xamante ni ci jëmm jëmm nga bokk loo defee sax jàpp ni ñëpp nga ko def benn la éducation la boo xam ni spirituellement boo wéete boo wéete lu ko nga yemale li suñu Abdoulaye wax mm-hmm. ci loolu la ñuy dox maanaam fi mu toll booy boo nit ñi jéem a adapté loolu euh, dana metti nag parce que yi xam nga liñ naan ñaari ay weñ moom joom joom moo leen di daas Mm-hmm. looloo dal murid maanaam soppante gi bëggante gi gisante bi day day baax ndax day am lu muy def waaye nag bu dee dem nañ ba ngànt am ndax sëñ bi ibaadaat yi sax benn bu rek bu ci nekkat am na ngànt la koy teggil ndax fi mu toll ni eh, julli taxaw la baaxoo waaye fi mu toll boo mënta taxaw mën ngaa yegg ci mën ngaa yegg ci ci wéeru mën ngaa yegg ci toog mën ngaa yegg ba ci tëdd man ngaa yegg ba ci xapal xappal ay ay xef lenn na nga am foo loo ko mën nag koor gi li muy maanaam fi mu toll nii euh, feebar dala koy joxal tànt aj màkk ji boo ko mënee la ñu wax boo c'est-à-dire man bu ma yorut may fàqir ken mayu ma paas mënu maa dem te damay daal di wàcc natt asaka c'est-à-dire ci boo ko mënee ak lu loo xamante ni denc ko ko ren bi déwén mais bu dee fekk entewut ren bi amu ci wala denc ma ko wàcc na lii aussi bu mu doon benn handicap boo xam ne nit ñi danañ toog bañ a def lañ daan def ndax kaamil alxuraan bi wala asim dëkk bi buñ xamoon ni ak xasida yi moo yor dëkk bi kon doon ñu bàyyi ñu koy def waaye nag ginnaaw dem nañ ba nekk ni ci àdduna lañ nekk te ñoom gis nañ ni prévention bi wala lii lii lii gàttangal jàngoro ji maanaam bañ a dajaloo la te ñoom lañuy ñuy def yow bir na leen am pom moom tubaab kenn mën ko ko tere te pom mooma bàyyi nañ ko rawatina xoolal football bii nga xam ne mooy daanaka seen lépp milliards yi ci jiraareeg li ci nekk intorno lépp ñu mën koo tëj à porte cuisée football à porte cuisée kenn du ko fekkee mais kon ñu nit nag war nañoo mën a jà am jàngat ci loolu lu tax duñ leen fekk si ci loolu gàtt nga lu ñu diine ji bañu mais àdduna c'est-à-dire du jikko jamono la jamono jee toll foofu donc ñu nit bu ñu gën a gëm loolu na nekk ci loolu te virtuellement ñu jàng moom jàng moom war a moom ndax nit lam sàlloo baax na waaye la ca sax moo gën kon daayira bu ngeen bokk na ngeen ubbi benn groupe whatsapp bind ci ñëpp kaamil yi ngeen teg ko un ba trente la kenn ku ne jël un ba trente bu ngeen ëppee loolu kenn ku ne jël euh, doppi numéro bi bu ko defee kaamil gën a baax ngeen ciy soññee ci nan lañ joxe bi ndax bu boobaa dana di ngeen xam ni jàng nañ euh, jukki bi wala jànguñu ko xasida yi ngeen di laaj ñu ne bu ko defee day impañaare kenn ku ne kenn ku ne da nga yàkkamtee joxe sa lim ndax ah gaa ñaa ngi joxe te joxe te bir na leen am nga fi cinq mille yoo mën a jàng mooy wala ak waa kaana xaq nga toog nekkoon ci leneen loolu dana la soññ dana la dana la kii dana la kii man fi mu euh, nga xam ne daan jàng ci daal fi mu toll nii da nga ne yor ñu nafar ma ma teel ñu tari ñu te tey ñu def seen i compétition kon tam xale daan jàng nga xam ne dañ daan dem ca daara ja chaque dimanche te loola sànku ndax xëy na feebar bi wala lu ci mel ni ñun ñu tëj daara ja bu mu tax ñu toog croiser les cerveaux donte dañ leen toog di leen joxloo kurus sax ñu tàmm jéem a tàmm kurus di ci wax bismillahi rahmaani rahim wala ñuy jax wala alhamdulilahi wala la ilaha loolu tam tàmbaleeku nag ni dana baax ndax xale bind bu tooy la loolu ci bind ci may mel ni danga bind ci ciment bu tooy loolu daal mooy li nga xam ne ñun ñu ngi ci lañu lay dox Pape Demba. sëñ waa dafa mel ni euh, am nañ gan de salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam kooku sëñ. Ndiaga Kébé Touba Parabiago Milano. waaw sëñ Ndiaga ñu ngi baax Kébé. ñu leen di ziar di leen jaajëfal di kontaan ci yëf yi ni muy demee ak laay biir gi. Mhm. ak sang boobu génn noonu incha allah. Mhm, ah, di wax ñëpp rek ñu dellu si waat di di ñaanaat. ndax lii lii. ak tooñ rek a ko waral du lenn lu ak tooñ. Mm-hmm. ci ko am ci ko am nag euh, basira laa ba ti xol. Mm-hmm. ndax nit ki nga di ko xor ñooñal jël sa tànk teg ci bopp bi. néewul on ngay bës rek. Mm-hmm. di bës di bës di bës ba fa doon yóbbu. daane ko lii nga doon dox ko fi doxe te jëm ci yàlla. bis bu yàlla réagir rek ñëpp am problème ndax wattaqoo fitnatan laa tusiibanna ànd moo ciy feeñ mm-hmm. lu bari am na ñoo xam ne biñ ko gisee ñi ngi doon reetaan di sayte waaye tey ji ñoom ñëpp kenn ko ne wut fu mu dugg mm-hmm. te ka nga ne moom moom lañ jëloon tànkam ca boppam moom moom la gën am aafiya mm-hmm. ndax ndax leer na ko bu bu bisam jotul lu dem te itam gëm na ni ki ko sàkk sàkk na ko ba pare. Mm-hmm. te lu mu dogal ci moom da koy da koy daf koy neex. Mm-hmm. Eh, ak benn action rek boo xamante ne si eh, Serigne Mountakha yàlla na yàgg eh, te wér bépp julit do dogu bi mu am bi mu bi mu dogu ci ci ci ci màggal gii nii. xam nga fu ñuy ñaanee hôpital la. Mm-hmm. bu mu am. adduna bu tukki la. Hmm. la. Hmm. dafa am dafa am dafa am yoo xamante ni si eh, bu nit ki jaaxlee dootul dootul xam naka lay def parce que dañ ki xaru. Hmm. instant bi muy bi muy choisir jël euh, euh, buum takk ci baat bi wala mu jël fetal fetal boppam. dafa tàqali ko xelam mais am na yeneen euh, solution yu fi nekk yu dul xaru. waaye li nga xam ne moom moom mooy li ci nekk guddoo ak gàtt. lii ngeen gis ni nii tooñ gu metti la suñ borom réussir mhm. wan leen ni nen du yéen mën a euh, vidéo boobu bu ñu ñuy euh, wëndeel ci réseaux sociaux yi fan yëpp naan sëñ Cheikh Tidiane daf ñëwoon euh, suñ borom nee na leen ci kaw mën a ci suuf mën a mi ngi bi ay nangami virus yoo xam ni benn yëpp ngi nelaw bum ci yabal rek mu def loo xam ni malaaka mhm. doon woon xalaata def mhm. day faagaagal aw askan waaye waaye xàq ak tooñ daa baaxul mm-hmm. surtout nag ki ngay tooñ amul pexe nga xam ne ci yàlla rek lay dellu mm-hmm. ñi fu ñuy wàcce kaamin di fa jàng ay wakaana xaqan jës buy mawaahibu yi di fa jàngal ay tutànk nan leen bismillahi baasin mimara ñun la fuñ fuñ dalale jële ëlloo teg ko ci lupp xale bi ne ko baa mm-hmm. mu ni baa ñu ne ko siin mu ni siin mu ne ko jégal nañ way wayjur mm-hmm. ak yeneen mm-hmm. xeeti balaa yu bari yoo xam ne bu doon ñëw dañ koy dévier nga di éliminer loola yóbbe yeneen i jafe-jafe yoo xam ne ñoom xamuñu fu ñu koy eh, jooyee loolu cell mais force yu yu yu mel ni am nga nga dem nga bu fekkee ne nag da nga dëgër bopp doo dellu si da ngay continuer rek waaye nag ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ñoo fi nekkal suñu borom muy ñun julit ñi bon nu xaat nañ koy ñaan nan koy ñaan rek nan taxaw di ñaan rek mom du du du du du du massa masa euh, gedd ci ci ci ci misal suñ borom du gedd mukk mhm. bis boo ko del ci ne ko ma ngi rek mun la acca nan dem mhm. Mhm. waaw ni ni ngeen di euh, doxale ni lu ama am solo la waaye mandaal bi nga xam ne moom moo ne ci moo ne ci sama xol te di ci e, góorgóor yi e, defe na su ma juumul yow barab boo xamante ni si bi ko tëjee ak bi yëf yi ne jàll. iman la. yaa ngi ko seetaat iman la de iman la. man maa ngi ma leen doon wax dimanche ci ginnaaw. dëgg la waaw maa ngi lay maa ngi lay lim léegi de yow waaw tarkale. jërëjëf jërëjëf Amady asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. sëñ Pape. Hmm. waaw léegi sëñ bi doon waaye damaa jàpp tontu sëñ Kébé mi laal waaw mi maanaam. ndax euh, am mbokkum taalib moo ko wax rek da ma eh, ah, dañoo tëj suñu daara ji waaye borom tëj seen école yi. ñu ne waaye ma daari dañ koo tëj ah, ah, suñ seen borom suñ borom tëj na seen école yi. waaw wax na dëgg wax dëgg de wax na dëgg de ak wax dëgg ñu teewoon mm. mun xamoon adduna bi de duñ ko fànq day sëñ Pape xolal xoolal siñ fi mu toll mm-hmm. xoolal màkk waaw kaaba ga kenn tawaafu ko waaw dañ léegi dañ cee def benn périmètre de sécurité amatul dootu dootu nit ñi dootuñu ko laal mi ngi noonu dootul bàyyi xooma la dootuñu ko laal wër gi ci boppam daa amutoon waaw waaw dañ ko tëjoon euh, kii bi ñu ngi ko ati. Euh, ji man suivre naa ko. en direct ajjuma ji dañ ko tëj am na ñu doon génnewaat ay contre-son naan noonu li amut man maa jàpp télévision bi direct. non c' était wane sax jël nañ ko par satellite. waaw. man maa photo satellite bi dafa tëjee. mu ngi noonu léegi te loolu ba même ba fa yéefaree yi nekk di fa teg di fa seen seen seen statut yooyu kaaba gi mës a vide même ba fa yéefaree ne. Mm-hmm. Mm-hmm. kon tey jii pexey noon dikk na ci lislaam jii daal ku ko fi defe ñun la du fi mhm. lislaam tumuraanke lool te ñi ko waroon a faj ay naafeq fa toog mhm. bërki dem waxtaan naa si jën waaye mun ma loo jàpp mooy solution ma ne ko maanaam jullit ñi de mënoon nañ ko faj mun ma wan jullit ma ne ko xanaa ñoom bu góor ni Mm-hmm. te yàlla daf koy xéewal tey jii bu Arabie Saoudite xëyoon ni moom waxut day day jël ngànnaay waxut day day dem ci réunion waxut day xeex kenn maanaam day xëy benn suur dong tëj robinet pétrole bi daat ne tey dama dama dama defut production mm-hmm. fu jullit ne nañ ko jàmmal balaa ngoon ñu faj waaw robinet bi rek na ko tëj na tëj robinet bi tey ni produire mm-hmm. nga ma ca seen biir hmm. seen ñoom. waaw hmm. ah, mu mel ni da am gan. maa ngi dégg lu am nañ gan kay salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw mbokk mi. Makhtar Ndiaye Touba Darou Khoudoss. ñu ngi ziar bu baax Sénégal. waaw maa ngi baax sëñ Baye Fall. jaajëf waay. baax. ngi leen di ziar bu baax. alhamdulilah. da ngeen jëf. na ngeen def ak càmm naka mbokki Touba waaw sant waaw Touba de te góor da la def lool moom. góor waaw xam naa góor na lool de moom fan yi dëgg la dëgg la. gan yi gan yi gan nañ ñi demoon Poroxaan. waaw waaw ñëw nañ waaw ñëw nañ waaw. alhamdulilah yéen ngi waajal yéen ngi waajal Kazu Rajab. waaw ci kàttanu yàlla waaw incha allah yàlla incha allah yëpp jam, jàmm. waaw man de fi may fi may kii rek mooy daanaka fi sëñ boobu génnee. Eh. génne rek foofu laa doon bëgg wax sax. Mm-hmm. waaye li ma ci jublu wax rek mooy mooy li may wax euh, sëñ Ablaye Diop moom man ma koy wax toujours ma koy wax toujours suñu mbokki daara yi. dañ <coughs> xam ni nañ dellu xam ni xam naa xam nañ ko sax waaye ñu dellu xam ni rek daa yombut daal te te lu baax moo jafe benn ñaareel ba euh, moom boo ci nekkee toujours rek. day melni sun borom dalay dalay tek ci yo xamni day metti lol dal par rapport ak keneen ki nekk ci yoon wi nga xamni ni si ne mooy yoonu yoon wa yoon yoonu caaxaan waaye waaye bu loolu jàllee ci loolu moom ci ab ikma la ci ñun ñi nga xam ne ñooy ñoom ñuy dox ci wàllu bëgg ñi baax dégg nga gis nga nim leen di jafeeg liñ leen ciy teg waaye bu loolu jàllee beneen jàngat bi ma ci gis mooy kee doon na ko junj léegi mooy italien yi ñoom dafa mel ni Eh, ñoom itam xam naa bu fekkoon ne am na ku ci am dégg-dégg yàlla na yegg dégg-dégg bi yegg si ci ñoom mooy seen boroom xam-xam yi mooy ñoom maa ngi ko doon wax ak am na ku ma doon waxal dama ne ko man li ma nekk Italie yàgg na ma gis France liñu ñu li liñu li ñu dund ci wàllum wàllum dégg nga ay bomb dóor fii nangam nangam ci at yi yow yaa ma gën a xam. Mm-hmm. mais yooyu yëpp yooyu yëpp suñu borom da cee musaloon Italie sëñ bi. te man yooyu yëpp maa ngi jàppoon ni li leen ci défendre ñoom waa Italie xam nga mooy lan mooy kaamil yi ñuy wasal foofu ak li mu wakaana yi ak maraq bi man man ndax man mi di wax ak yow man man man man man man ci loolu ci man ci loolu laa doon dox man ci loolu laa nekk foofu lépp ci loolu laay dox. Mhm. man dama daan yéem nit ñi lim bi ñuy jàng foofu. Mhm. sëñ bi maanaam yooyu yëpp doon doon doon yoo xam ni yàlla nga ko def ci seen biir bàyyi leen ci nekk jàmm mais. ma seetlu daaw dem ba daaw bi ma ñëwee foofu Livorno le quinze. waaw bi ñëwee ci nganu suñu mor gi. Mm-hmm. Eh, boobu laa njëkk a dégg ñu ne ñi ngi sonal doomu daara foofu ci seen côté boobu. ba mm-hmm. jàpp ko ba tëj daara ji suma ma dëgg la voilà ba léegi sax ba léegi. ay eh, léegi fan yi ci ginnaaw ma déggaat beneen kaaw mon Monsa bi nii mu metti ma lool. Mm. yaa ngi dégg. Mm. moo tax bi ma déggee lii rek laa ni laa ni suñu borom de comme li kii wax léegi suñu borom de mi ngi ñëw mi ngi ñëw. mi mi ngi ñëw noonu laa ko noonu lañ ko mën a jàngate xëy na nag ku yëgut ñun fi ñuy waxee du ko du ko dégg li ñuy wax daal mais lañ mën a gis ñun ndax ndax ndax ndax tamit loolu mooy am. Hmm. neexul ba neexul loolu mooy li am. kon kon ci wet googu euh, loo loolu lañ fi mën a dégg ba tamit ñu ñu sant yàlla bu baax nag kiwuñu demuwuñu euh, kaañuwuñu yàlla na suñu borom doole dimbali. Hmm. te aaral nu aaral nu jullitam yii yàlla na yàlla taxawu hmm. jullitam yii. képp fu jullit yàlla ko yàlla taxawu amiin gën gën gën a gën a gën fépp fu mu nekk yàlla na ko bi taxawu amiin amiin ñu ne ko ñun ci njort ndax Cheikh Bass de wax ci mu wax dafa dal xel yàlla mën na waaw waaw kon baax na ma damay karoon kii bi dafa dem yéen ngi lay dégg demul demul yow la ñuy déglu léegi Eh, man man ci jàngat boobu laa gisoon ci wàll googu beneen wàll bi may beneen jàngat bi ma gisaat mooy eh, ñi fi nekk di dund Italie na nañ danaa koy wax toujours am na mbokk mu doon wax léegi wax na ko nit ki bu nekkee fi béréb Pape Demba man sama ci sama xeex la bokkoon <coughs> nit ki bu nekkee fi béréb yoon la mu jéem a contacter waa réew ma jéem a ànd ak ñoom ci lan jéem seeni seeni intégré intégrer bi du du pour da ngay intégrer pour ki mais da nga fay intégrer pour comme ni ngeen di def ni ngir duggantee ñom ba nga xamni bu xébar ñëwé bu dara ñëwé nga xam loi bi lu mu wax di ko dégg nga di and ak ñom ci lool di masla parce que loolu yoon moñu ko may suñ diiné tamit may nu ko du dëgg mm-hmm. wa kay lool loolu buñ ko dundoon sax man yaakaar naa buñ ko dundoon yaakaar naa li wax ni yéen ma ko gënam sénégalais yi des nañ ci wet googu ndax buñ ko dundoon lañ ko war a dunde comme lii lii nii di am nii nga xam ngi ñëw ñoom kalaasu Sëñ Ablaye Diop gi nga xam dañoo am am ay ay sëriñu daara yii di jàngale nga xam dañoo am yéene rek di fasal seen yéene muy seenub liggéey dégg nga ñu juddu dund ko doon na ko yaakaar ne fu nekk dañ ko faa war a kii moo waral ñu dem ba ba bay bay joxe seen seen seen seen seen seen seen xàq ak ak ak walante def daara yi ñuy def nii ba ba lii di leen ca fekk mais yaakaar naa am na fun waroon a jaar buñ fa jaaroon danañ am daara di fa jàngale te kenn duñ wax dara wala déet. Mhm. dëgg la dëgg la. dëgg la dégg nga ngeen fi may waxee bu baax. waaw voilà mm-hmm. man ma man man gis-gis boobu euh, yaa lu ma yàgg di di di di bëgg la di ko di ko kii. mais nag malheureusement yéen ma gën a xam foofu ni muy doxe ak daayira yi ni muy doxe et cetera et daal bari bari na. Mm-hmm. Euh, waaye daal bala ma bala guddal ci ci ci ci ci kii bi maa ngi leen di maa ngi leen di dellu di leen di leen di leen di leen sant bu baax di leen ñaanal. Mm-hmm. Euh, sëñ Laay bu leen bu kii leen bu leen xaddi yàlla yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na barke Cheikh Ibrahima man nasrullahi yàlla baax na dégg mm-hmm, mm-hmm. dañ dañ demba ni ngeen di def nii tamit lu baax la yéen a ngi yaatal macha allah. Mm-hmm. noo ngi dellu di ñaanal sëñ Modou Mbaye Thiam moom itam yàlla na yàlla taxaw yàlla na ko dimbali waaw ndax li muy def nii kawe na li muy def nii kawe na macha Mhm. waaw ku mat ñaanal la moom itam. xam naa ah, xam naa xam naa yéen a ngi ci waaye nag nañ koy delloo rek. moo moo yor lépp. Mhm. <laughs> nañ koy nañ danaa koy fàttali daal ndax fàttali mu fa lañ ko fekk. jar na ko jar na ko jar na ko. waaw mhm. ah. ah, waaw maa ngi leen di maa di maa leen di kii bu baax. xam nga euh, xam nga boo xoolee ku mel ni sëñ Momadane xool ku mel ni sëñ Fambaye Samb dégg nga. ñooñu ak liggéey bi ñuy def ci rajo bii nii. ak ñeneen ak ñeneen ñu ma tuddul dégg nga mm-hmm. ñu dem ba rajo bi nii da ci am ñoo xam ne si ne dañ dañoo dañoo xamante xam nga bay dund loo xam ne si ne grâce à bi yooyu yëpp yéen ma ko gën a xam vraiment euh, mm-hmm. ñoo ngi ñoo ñoo ñoo sant bu baax di ko ñaanal mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mel na ni xaw na ñoo xaabaabal sax ndax romb nañu tey rombaat nañu fan yi moom daanaka bés bu nekk dañuy euh, euh, ndax euh, waxtaan bi. mënta ñàkk xam ni Pape mënta ñàkk. mënta ñàkk suñ kon dama lay joxaat kàddu gi rek xam naa ni recommandation yi ñu war a joxaat sénégalais yi mën a succee bañ a. tega tegaat sa na ngeen ñu jégal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. sëñ Pape. Wow, jërëjëf sëñ sing moom macha allah may ziar bu baax sama jëwriñ ñëpp laay eh, di wax rek eh, ne ñun nenu sant yàlla waaw gannaaw bi ñu yàlla suñu borom dafee jullit dellu def ñu taalibi sëriñ Tuubaa loolu mat a sant yàlla la beneen bi ci toppit mooy maanaam eh, gën a delluwaat sant borom bi ba jamono ji ñuy wax nii dégg gunu benn man de dégg guma masamaak sénégalais waxtu malaak taal bi sëriñ Touba bu taq ci lii ñuy coow kon loolu nañ ko jël ci baatin rek def ko muy muy muy muy ak gàllaaj akub cant la ca des nag mooy a ah, comme yàlla dimbali nañu ba fii nu toll nii taquñu ci lenn nanu tegu rek ci recommandation yi toog ci kër gi ndax nag sama bopp mën a gën a du bañ naa la ndax ku ni gis na. vidéo daa am daa am ku ku bi dafa am mel ni ku ubbi Facebook am. dafa mel ni dafa mel dafa mel ku ubbi Facebook am. waaw. waaw bisimilah. Eh, maanaam gis nga eh, yëf yi dafa dafay am ay effets collatéraux. effets collatéraux yi ñoom ci seen biir ña ngay reyante ñoom tubaab yi ci virus bi ndax waa sud bi ñu ngi naan waa noor bi yéen ay jamono mosu leen ñu bëgg tey jii yéen a ngi bëgg a jóge ci noor bi bëgg a daw ñëw ci ñun tey jii am na ay dëkk yoo xamante ni nee nañu fu italien jóge nga yor passeport italien ñun ñii sax ci suñu bopp yor passeport italien bu ñu demee yenn dëkk yi dana ñu mettre en quarantaine kon euh, ñun liñ tax ñu war sant yàlla bari na euh, waaye nag loolu du tere matuwaay yi nga xamante ni dénk nañu ko euh, li bay Fall doon wax léegi euh, ci dëkk bi lañu bokk ndax koom-koom bi bu wàccee ñun dañuy ànd ak moom mettit ko yëg ko lool ni ko tubaab bi di yëgee bu liggéey amul ñu nit dañ koy yëg lool ni ko tubaab yi di di yëgee kon du ma wax intégration waaye li nu am ci xam-xam li nu am ci euh, ci culture maanaam diine bi ak lu mënti doon euh, nañu ñaan yàlla rek mu kàttanal ñu ba ñu mën di ci interagir ak tubaab yi ubbeeku googu euh, bu lii yëpp weesoo ñun war nañ cee mën a jàngaat ci lii war a xoolaat beneen taxawaay boo xamante ni war nañu mën a ubbi ay brèche yuy mën a permettre interaction boobu mën a am parce que fii ñu ngi yem ci tubaab yi intégré wuñu tubaab yi intégré wuñu rek euh, dafay xaw a dafay dafay xaw a euh, nekk benn sens unique que ni ñun rek ñun ñoo war a intégré que ñoom waruñu accepter ñun suñu culture wala li ñu am wala li ñu moom te war ñu commencé di dox ci ci yoon woowu nga xam ni Baye Fall mi ngi ko doon dund léegi euh, recommandation yi ñuy joxe nag mooy zone rouge yi mi ngi yaatu xamuñu ndax dana gën a law xamuñu ko ndax Parma gi ma nekk eh, démb bërki démb ci guddi ku la ni woon dinañ ko def zone rouge doo ko gëm kon comme tey egg nañu fii eh, li ñuy dénk suñu mbokk taalibe yi rek mooy ne nañu tegu ci yoon yi booy liggéey jëlal sa Moustapha nga rek bàyyi ci sa biir oto buñu ñu la laajee foo jëm nga ne damay liggéey boo liggéey ba wàcc it dem sa biir kër ndax olof dafay faral di wax kat ki reer tëdd mooy wallu ki reer euh, kiy doxi euh, kon nanu yam ci liggéeyukaay ba ak nekk ci kër yi ndax euh, yëfi dadul ñun rek ndax sunu njaboot gi Sénégal sax dañuy xaw a am tuuti jaaxle waaw dañuy xaw am tuuti jaaxle ci ñun ak ci yan anam lañu nekkee waaye fii ñun ñuy dégg ñoo ngi ci kër gi ñoo ngi nii ana sëñ pap mu ne la mi ngi nii ana soxna si nga ne ko mi ngi nii toog ñoo ngi nii jàpp sunu ñu ngi sant yàlla waye buñ lay dégg nga né ah, damaa génn maa ngi dem fee rek seen xel du dal kon ñun nanu njëkk defal suñ bopp dalal suñ bopp bañu indi benn panique bañu indi benn psychose ndax gis nga vidéo bi di wër ci facebook bi ci whatsapp yi ab tubaab bu bu woote directement ci télé bi di wax naan lan moo tax virus bi laalul immigré donc mu wan la benn demen demen Euh, maanaam limite bi nga xamante ni ak ignorance bi nga xamante ni euh, du ma ni benn minorance moo ko fi am parce que boo nee minorance rek yaa ngi juum parce que minorance raciste yi nekkatu fi parce que bu ñuy wax minorance rek parti Salvini du toll fii mu toll tey kon minorance amatu fi ñi nga xamante ni bari nañu fi loolu bëgguñu immigré bari nañu fi bari goo xamante ni euh, kenn mënatu leen a lim yen mënul ñoo euh, mënatuñoo ma dayo bi ñu toll légui nak la leen di la ñuy dimbali ñun sunu ñu gattal suñu tank sunu suñu suñu suñu facebook ki euh, skype yaa ngi fi instrument canal euh, web yaa ngi fi yu ñu mëna def suñu ay réunion yu ñu mëna def suñu ay daayira ci anam bu ñu ko bëggee ndax nak di mën nga def daayira comme ni ko suñu ablaay waxee dëgg yalla lañuy def ci daayira ba sax keroog bàyyi laat sax mi ngi koy Eh, lañu lañu wàcce ci kaamil yi ak nu ko wàccee ak gaaw ga mu gaaw te permettre eh, gàllankooru lenn loo xamante ni war nañ koo def ci biir kër ga eh, yàq lu leen dara te ku nekk ngi toog sa kër jàpp sa njàmbur xëy na amaana gise bi saafonte bi loolu mooy li xaw a manqué tey te loolu it jàmm rek moom muy umpe waaw yàlla rek yàlla rek moo xam yàlla di ñaan yàlla sunu borom mu mu saafaraal ñu lii ci mu gën a Euh, ndax nag ñun ñaan rek la ñu am te ñaan rek la ñu mën du ñu docteur euh, bokk ñu it fa ñuy naseeg euh, fa ñuy fa ñuy lijjantee waaye sañ sañ nañu ñaan yàlla suñ borom mu saafara ko ndax bu saafaraawoo ci réew mi ci réew mi la bokk dañoo bokk ci li koy suuxat bokk ci koom bi kon dañuy ñaan yàlla li nga xamante ni tegu na fi mu saafara ko saafara ko ci beneen réew bu mu dugg it Euh, ñu delluwaat ci activités yi ca nañu ko nekkee woon euh, di ñaanal ñëpp jàmm euh, di jéggalu bu baax nag ci kàddu yi bu dee am na dara lu ci lu ci lu ci dëng rek suñu ñàkk matadi la di jox ñëpp dox daje incha allah beneen dimanche ci kàttanu yàlla jërëjëf sëñ Pape. jërëjëf sëñ Pape Mortar kon xam naa ni damay damay damay jaar rek joxaat sëñ Ablaye mu defal ñu ñaan tey jii moom boo boo nekkee sa jëwriñ moom. da koy jox mu ñaarala rek <laughs> xam naa ni. dama euh, déglu rek moo tax buy wax du ko dagg. <laughs> li ñuy bëgg tëjee rek moo di di fàttali suñu mbokk jaaykat yi ak ñi nga xam ni yoruñu këyit ndax jamono ji wax dëgg fa yàlla contrôle yi bari na bu ñu sañoon nag kenn du ci am jafe-jafe euh, rawatina waxuñu jafe-jafe santé waaye jafe-jafe këyit euh, ci wàllu yoon ndax. Euh, bu ñu defee ay poste di bloco contrôle yi dafay bari kon euh, moytu dafay dafay lu lépp luñ daan def dañ ci war a gën a moytu ñi nga xam ni dañuy jaay moo xam euh, seen njaay nekkul en règle dañuy bàyyi xel ci loolu période bi daal buñ doon buñ doon joxe xalaat dañuy wax ni li des ci weer wi ku ko mën a toog sa kër maanaam di génn ci lu loo xam ni mënta ñàkk bu dee yaa ngi liggéey boo liggéeyul euh, ñu muñ ko maanaam euh, dem defi spesa wala dem liggéey wàcc ñëw toog sa kër ba ba ñuy yëkkati lii nga xam ni moo di euh, alerte général bi nga xam ni moom lañ teg ndax nag tubaab yi li tax ñu arrêté seen économie bi yëpp du ay caaxaan nit nag boo nekkee ci ab dëkk ñu ne la euh, tegul ci yoon wi boo bëggee jàmm na ci tegu euh, ñu lu góorgóorluwaat ci cet gi di waxtaan ak suñu njaboot gi nga xam ni maanaam euh, ñu dañuy dégg léeg-léeg yenn yëf fi duñ ko comprendre ñu communiquer ak ñoom di leen suivre ci wàllu njàng bi ndax jamono ji bu fekkente ni ñi ngi ci kër gi war nañu mun a am nag temps am ku nekk ci kër gi ni ñu koy waxee ndax euh, defe naa ni euh, jamono ji agévolation yi am na pour au moins benn familiare toog ci kër gi euh, ñu mën leen suivre ci wàllu njàng mi seen portail yi nga xam ni moom mooy portail yi ñu ko amul bu ñu bindee seen école yi war nañ leen mën a envoyer par mail crédential yi mooy didub familia bi ci ngay mën a xool xale bi ay notam bari na parents yu ko amul lool dinañ ci dellu si waat xëy na bés ndax ñàkk suivre seen njaboot ci seenu njàng ndax yaakaar nañ ni xale yi bu ñu demee bu ñu dellusee rek ñoom seen njàng mi ngi dem fekk ne njàng mi léegi daanaka xale yi euh, daf daf euh, lenn la ñuy def école li ëpp ci kër ga lañ koy defee moo xam computer yi moo xam laboratoire yi yëpp daanaka dafa am ay ay ay ay projet yoo xam ni daanaka léegi xale yi ci la ñuy liggéey Euh, boo boo dul suivre euh, maanaam euh, portale boobu daanaka mën naa ni sa doom du bokk ci classe bi ndax lu ci bari du ci mën di participer mooy consensus yi ngay joxe pour projet yeeg yooyu kon nañ ci profité waat amaat lu ñu découvrir ci sunu suñu njaboot te gën a góorgóorlu ci di leen contrôler bañ topp seen bëgg-bëgg bu la nee dañuy génn ñu xam ni jamono ji restriction yi du restriction wu euh, lu ñu neex ay restriction la pour des motifs très valables ñu leen ci góor góorgóorlu tënku ci góor it góorgóorlu euh, euh, comme ñu ngi ci kër gi ñaan yi du doy luñ ci def du doy nañ ci lu gën cee gën cee jàppaat fexe ba gone yi ñi nga xam ne dañuy toog ci kër gi léeg-léeg toute la journée bu ñu jàngee ba wàcc bu ñu jàngee ba ba noppi seen compiti war nañu mun a nafar def ay ñaan loolu daal la ne woon tey ji nañ koo joxe ci situation bi daanaka ñun nii moo xam man la moo xam Pape Makhtar la moo xam yeneen mbokk daanaka sunu sunu sunu page Facebook yi nekk na am jamono ji ay page yoo xam ni daanaka euh, barab la boo xam ni lépp lu fa lu wàcc ci information daanaka boo xoolee dañ koy relayer en temps réel euh, kon mbokk yi Euh, na ngeen xam ni rek jubluwuñ ci ci tiital kenn waaye dañ ci jublu ngir aar sunu bopp aar njaboot gi yëpp aar communauté bi kon tey jii loolu lañ doon euh, loolu lañ doon laayante biir tey jii ci ci diaspora di sant ñëpp waaye nag di ci jiital ci sant bi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall moom mi nga xam ni moo nekk ci xarala bi kenn du ko gis kenn du ko dégg waaye daanaka moom moo yor liggéey bi yëpp kon ñu ngi leen di sant bu baax di ziar sunu jëwriñ yi sëriñ Mouhamadan mbake ak sëñ Ibrahima Ndiaye waaye it di la sant Pam Maxtaar di ziar Cheikh Mbacke Mbuub gëwëlu xaadim xaadimu rasool def naa ni semaine bii moo doon anniversaire moo sëñ sëñ sëñ Saer Cissé ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal tawféex euh, di di di di di ziar ñëpp waaye nag di jox kàddu gi sëñ Ablaye Diop di ko ñaanal jàmm waaye di ko ña di di di sàkku ñaanit ci mbokk yëpp.

baxlikum naaraan mooy mooy jafe-jafe bi fegal sa bopp sawara te fegal ko sa njaboot te yaakaar naa ni ñun ñëpp benn njaboot lañ ndax jullit benn bopp na li ngeen def euh, ñëpp ngeen ci wutu ñëpp ci wuutu ndax euh, temps xam nañ lu gànjaru la jamono jiit lu xat la waaye euh, laabire ndax na nasiixa la diine ji daal laabirante la te lii ngeen ci def dëgg yàlla kawe na njort kon nag ñoo ngi leen di ñaanal yéen toog tafexe suñ borom ngeen dund ba lépp moom li ngeen yéene rek suñu borom defal leen ko defal leen ci jàppandal bu baax a baax danaa gën a tënkuwaat rek ci ci ndigal yi ñu xam ne tam dañoo am kilifa noonu euh, suñu kilifa nag weesuut Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, ku am kilifa nag moom li ñuy wax Bamba moo di géej gi murit yi ñoo di jën yi lu dee ci géej gi du muurum tan yi kon ku doon tontu waju du xawma ignorant lañ ko tudde xawma raciste xawma soxor xawma ni ma ko mën a tuddee te doon wax naan ndax lu tax immigré yi ci ñu ko noonu alali suñ bo alali alali jàmbur lañ alali jàmbur nag te mel ni xar mi ci biir kër gi borom fetal bi nga xam day rëb bi romb ko fi dem biir tuwal jam ko du du téere ba xar ma takk di am kilifa ko ko moo ko ko moo ko ko fay kon ci loolu lan ne te loolu mënuñu ko ko expliquer ndax bu duggee ci boppam mu daal di tub te bu dee daal bokk ci kuréel ga suñ borom di xatma la alaa quluubihim bokkut ci ñun du mën a dugg ci ñun kon mënuñu ko expliquer lu tax lii mënta nekk kon nañ wàkkil war ci suñu borom wax asbunallaahu wa ni'mal wakiil santaat suñu borom ndax teg na koy nit teggil nu ko lu gën a tuub te tuubaaleel jul jaam ñi tuubaaleel jullit ñëpp rek ndax li may gën a dolli mooy nañ yokk istixsaar yi nañ tuubal suñu borom dañ leen tuubal suñ borom delluwaat suñ borom jéggul ko jéggul mbul mboolem jullit ñi waaye na jéggalit mbindee fi rek te xam ni lompoñ ak bind gi ñu bind ban dong nga tax ñu ñu waaye nag nguur géeg lépp moo ko moom rek la ñuy jaamu duñ ko bokkale kenn kon li may kii daal mooy delluwaat xel yi leen xamal ni lii kat suñ borom nam ut mu dal la du la waaye nag mbirum àdduna daa toll ci ñoom ñii ginnaaw àdduna dong nga leen tax a jóg te xañ nañ seen bopp àdduna ngir daw lii ñun nit nañ mel ni ñoom ndax dañuy wax ab dëkk boo fa demee ñuy doxe benn tànk bu doon ñaar tànk da ngaa war ko yor benn tànk lu ko may rek boo xewee danañ la danañ la faaweegal ba ñaari tànk yëpp nag far kon nañ nañ nañ tënku ci loolu te xam ni suñu borom mën naa dogal du yàgg ñun ñëpp ñu delluwaat suñu yitte ndax tubaab yi ñoo la gën a xam yitte àdduna te lem nañ lépp toog ca lem nañ seen i basang lem nañ seen i kudd lem nañ seen i jumtukaay te a tubaab na leen ni alal dong ko tax moo ko tax di dox amul dara lu muy dox loo xamante ni da koy def ngir doomu aadama wala mu koy def ngir yàlla intérêt personnel koy tax mu koy def ñoo ko mën a xañ seen bopp asteg ñun nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, dara waruñoo dal ñun ab liggéeyam dara waru ko dal ndax li ci ginnaawam dafa bari te ji koo ci jël yàlla dogal na lu toll maanaam li gën a néew juróom benn wala juróom ñetti nit ñu ci ginnaawam yoo xamante nii moo leen di dundal moo leen di faj moo leen di aar moo leen di woddu moy dalal seen xel kon nak koka mom jàmm dong la waram nan ko ñaan suñu borom ba li ñen ñi di di dina sel ko xalaat ak yene dal ñi yene moom nek na moom nañ ko suñu borom ban maam na leen ko suñu borom sax bañu kepp maam mu doon néeg bu ñuy fanan ñom ndax yeen mu de suñu borom ndax yërëm leen ndax ay min def lañu rek xëy na seen xel ak seen dëng mo tax ñu wax loolu way nak xamu seen mbirum suñu borom la muy doxee xam ni timbaale moom taxut tax na tàq naan kon nag yàlla nañu suñu borom boole dimbali ñun ñëpp suñ borom yërëm mbindee fi wàcc fi jàmm delloo ñu suñu sago ba wax dëgg ñu ko gën sax yokk xëy na lii buñ ci jugee sax du ñàkk ñoo xamante ni dana gën a ndax loolu ab jàngat lay doon bu ma wax dëgg sant sëñ Baye Fall Thiam ak sëñ Ousmane Diagne ñoo xam ni nga doon yëglu moom itam nga xam ne moo daan def circuit jawaal yi moom waat na euh, bëgg jàppar ci liggéey bi sant mbokki taalibe yoo xam ne ñu ngi wootee fu nekk ci maam ba Texas di laaj maanaam Lombard bi ñu dégg ne tëj nañ ku ci mel ni Sim Kosa Sow a dugg waa Touba di leen di leen topp ko di ni soxna Ndeye Xadi Dugg ñoom nga xam ne ñu ngi topp rajo bi di déglu information yi ñu fiy jëlee ndax lépp da leen ñor nga xam ne ni information bu ñu fi jëlee bu valable lay doon ndax ñi koy présenté mel ni sëñ Pape Mokhtar sëñ Pape Demba ba ci géejul Xaadimu Rasuul kenn du wax lu ci sa rek lañ ci jublu kon nag ñoo ngi leen di jaajëfal ba baax a baax daal kàddu yi nga xam ne ñu koy jotal ngir sant leen daal maa ngi leen jotal di leen ñaanal yéen itam wax dëgg suñu borom defal leen tawfeex ñu joxewaat kon uh, dig daje rek uh, incha allah di rek jàmm ci émission diaspora ak ak programme yi rajo Xassida online Touba Monde bi maa ngi leen di baalu ak bu ànd leen daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh حسبي الله